asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baal ñu paax te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah tey jii ñoo fi indiwaat aw waxtaan waxtaan wi jëm ci li nga xam ne moom la ñuy wax azaka mu doon nag bunt boo xam ne yàlla dogal na nit ñi yàgg nañ di ñu ci laaj ñu di ci def ay ojo am na ci benn ci waxtaan yooyu ci ñi nga xam ne doon nañ wax ci wax yi ci 2018 boo xam ne su ngeen ca demee di fekk ñu am lu ñu ci waxoon waaye lu jiitu loolu dafa am rek benn wax boo xam ne moom lañ bëggoon a jiital dañuy faral di jot ay nit ñoo xam ne dañuy wax ne waxtaan yi dafa xaw a gudd waaye loolu liñ ciy wax rek mooy waxtaan li ci ëpp solo ci ñun mooy ngir mu leer mooy mu leer te loolu jàpp naa ne it moo ëpp solo ci yéen nga xam ne waxtaan wi am qualité jàpp nañ ne moo gën temps bi ndax temps bi su fekkee ne dafa gàtt it te wax ji leerut njëriñ li du bari waaye su fekkee ne waxtaan wi gudd na te wax ji leer nañ su boobaa kenn ku ci ne dina ci mën a jëriñu rawatina waxtaan yoo xam ne weer wu ne benn yoon lay am li nga xam ne nag moo aju ci sujet bi ñuy wax azaka nga xam ne li nga xam ne moom lañu ci daan jàngal démb mooy bokk na ci ni dañ daan wax ne azaka leeree wut ci alxuraan nit ñi daan wax ne li ñuy wax sunna moo koy leeral nde ndax di wax ne taux bi nga xam ne ci lañ ko war a génnee loolu nekkul loo xam ne lu yàlla jàngale la te bunt boobu ñuy wax azaka képp koo xam ne dem nga ci alxuraan di ko settantal ak di ko bàyyi xel dinga xam ne bokk ne sax ci bunt yi gën a matale te gën a leer ndax alxuraan dafa am loo xam ne nit ki su ko dee wax rekk ci lu mu yëg ak ci lum mu yëgul mu ngi weddi yàlla borom bi ndax yàlla ci boppam moo wax ne ab téeréem téere bu leer la waxoon na yonent bi ne ko wa nazalna aleyka alkitaaba tibiyaanan li kulli cheyin ne ko wàccee nañ ci yow téere bi muy ab leeral ngir bépp mbir ba tey tamit téere bi yàlla moo ko tuddee alkitaab mufassala muy téere bu ñu faram fàcce bi kon téere bi téere bu leer la di téere bu ñu faram fàcce mooy li ñuy wax alkitaabul biin di téere bu leer di alkitaab mufassala di téere bu ñu faram fàcce doon it ab leeral ngir bépp mbir kon nit ki su waxee ne téere bi am na lu ci ñëwut rek te loolu ñu ne ci diine la bokk lenn mooy mën a nekk mooy lañuy wax ne ñëwut nañu koy defee ñoom dafa wuuteeg ni ko borom bi jàngale waaye borom bi moom lépp lum ñu diggal wax nañu naka lañ koy defee ci biir téere bi ba mu leer nañ jafe-jafe bi nag mooy settantal alxuraan ak ñàkk ko settantal ndax yàlla dafa wax ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albaab danay ab téere boo xam ne wàccee nañ ko ci yow te barkel ko ngir ñu settantal ay aayaam ak ngir borom xel yi xelaat te yàlla waxoon na yonent bi ne ko wala xad anzalnaa ilayka ayatin bayinatin wa ma yakfuru biha illa alfaasiquun ci dëgg-dëgg wàcce nañ mu jëm ci yow bu wér ay aay yu leer mu ne loolu nag kenn du ca weddi lu dul jalgatikat yi nga xam ne faasixuuna yi képp muy ni nit ñi di wax saay-saay si nga xam ne ñoom ñooy naafeq yi comme ni ko suñu borom waxee innal munafiqina humul faasixuun nga xam ne naafeq yi ñoom ñooy nga xam ñoom ñooy jalgatikat yi ñooñu képp ñuy weddi ne yàlla ay aaya yu leer la wàccee loolu ku dem ci sootu Baqara di nga ko fekk ci aaya 99 nga xam ne yàlla ci boppam li muy waxal boppam ay wax yu leer la yoo xam ne képp ku dellu ci téeréem di ko settantal di ko bàyyi xel yow yaa koy gisal sa bopp loolu ñuy wax azaka loo xam ne la nit ki gëm dafa war ci moom mu di ko jël di ko jox ñi nga xam ne amuñu ndax ba ku dem ci alxuraan di nga fekk yàlla di wax ne ci sootu zaariyaat benn bi wa fi amwaalihim xaqul lissaaili wal mahrum suñ boroom mu ne te ci seen alal am na ci àq joo xam ne ngir laajkat yi la ak ñi nga xam dañ leen xaj ak mu waxaat feene walladina fi amwalihim xaqum maalumun lissaaili wal mahrum ak ñi nga xam ne ci seen alal am na xàq ju ñu xam ngir ñi nga xam ne ay laajkat lañ ak ñi nga xam ne dañ leen a xañ nga xam ne nit ku mën a doon ku doon ku gëm alal ji nga xam ne suñu boroom day dogal muy tàbbi ci say loxo am na ci àq joo xam ne dafa war a jëm ci ñi nga xam ne ñoom dañoo ñàkk ndax dañuy faral di wax ne diine yu bari lu tax muy jafe ci nit ñi ñàkk gim leen ñàkk yenn mbir yi moo ko jur waaye nit ñi suñu xamoon ne yàlla daleen leen fee indi am lum leen liggéeyloo ci kaw suuf def leen ay kuutaayam am lu mu namm ci yéen ñii mu jox leen lu bari ñii mu jox leen lu dugg doomu ñii mu jox leen lu néew ñii mu xañ leen te moo ne ñoom ñii ñépp kat kenn ku ci ne ci ñoom am na lu ko war fii ci kaw suuf loo xam ne yàlla gàll na ko ko mu doon ab mission moo xam ci wàllu alal moo xam ci wàllu baat comme yox nit ki am baat moo xam ci wàllu kàttan moo xam ci wàllu nguur moo xam ci wàllu xam-xam moo xam ci wàllu wu mën a doon nit ku ci ne suñ borom am na lum la ci jox am na ñu ciy jox lu ëpp lool maanaam lu bëri am na ñu ciy jox lu diggu doomu am na ñu ciy jox lu néew am na ñum koy xañ waaye kenn ku ci ne lam la jox danga war di ci liggéeyal yàlla ci ñi nga xam ne da leen koo xañ alal it dëgg-dëgg noonu la mel ki nga xam ne yàlla da ko jox alal dafa am àq joo xam ne ci alal jooja dafa war ci moom mu di ko jëmale ci ñi nga xam ne yàlla da leen xañ te loolu képp ku gëm dalaa war ndax yàlla dafa wax ci alquran ne wa huwa alladi jaalakum xalaa'ifa fi lardi wa rafaa baadakum fawqa baadin darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sarihu lhiqab wa innahu la gafuru rahim mu ne moom moo leen def kuutaay ci kaw suuf mu yëkkati darajaay ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi ngir nattu leen ci lim leen jox ngir nattu leen ci lim leen jox nga xam ne kenn ku ci ne ci ñun suñ borom am na fu mu la féetale ndax da gis nit koo xam ne suñ borom mën na koo xañ alal jox ko kàttan suñ borom mën na koo xañ alal jox ko am xel suñ borom kàttan googu nga xam ne moom la ko jox ni ko xañee alal am ñeneen ñoo xam ne da leen kàttan kàttan googu moom it noonu la ko waree ñu ciy jàppale ñi nga xam ne suñ borom da a xañ kàttan suñ borom it mën na laa jox xel te xañ la alal suñ borom nonu mu la joxee xel xagn la alal non la amé ño xamné nonu la len xagné xel yewit it loola nga war di ci liggéeyal yàlla ci ñi nga xamné yàlla da len ko xagn nga xamné aduna kenn ku ci ne suñ borom ta fam ko fétalé ak lam ko jox ak lam ko xamal ñooñu ñëpp suñu boolo def ni rek suñ borom lim ñuy liggéeyloo ci kaw suuf dinañ ko mëna défé niñ ko wara mëna défé ba ñun ñëpp dinañ mën a jëriñ suñu digganteek ak suñ ndax jafe-jafe bi yëpp lu ci ëpp looloo koy waral soo leen xoolee ñàkk yéenante jàmm ji li ñuy wax kiñaan gi wala bañante bi wala xeet yu bari li koy waral ñàkk xam li leen fi indi kese la waaye suñu leeroon ne ñun ñëpp ay missionnaire lañ ci kaw suuf te mission bi mooy lan mooy suñu borom li mu namm ci ñun fii ci suuf ñu mën koo matal kenn ku ci ne xam na kat suñu borom fi ma féetalee fii am na ku mu féetale feneen li ma tanee ki mu féetale feneen naa ko jàppalee kooku li ma tanee ca moom fa mu féete mu jàppalee ma ko ci domaine yépp ñu def noona su boobaa suñ nekkee ci benn kër kër gi dana dox suñ nekkee ci benn koñ koñ bi dana dox suñ nekkee ci benn dëkk dëkk bi dana dox àdduna bi yëpp suñ yeewoo woon ci noona àdduna bi jàmm rek a fi am te it adduna bi dana dox ca nam war a doxe waaye nag dafa doon mbir moo xam ne seytaane moom it lu mën a xew duñu ci bàyyi ndax soo demee ci wàllu alal comme li nga xam ne dafa jëm ci wàllu joxe da gis suñu boroom day jàngale ne ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu waasiun alim seytaane moom dañuy dikk ak ñàkk nga xam ne nit ki même yow so amee sax di dimbale wala di jàppale ñi nga xam yàlla dogalul seen am am yaatu da ngay gis ne nit ñi nga xam ne dañ lay wër yenn saa dañ lay ragalloo wala di la wut a xel ak ñàkk wala seytaane moom ci boppam ñëw di la ragalloo ak ñàkk wala di la ko dikk lii kat soo ko dee def moytul nangam gii mu ngi ñëw war nga ci def nangam war nga ci def nangam war nga ci def nangam soo moytul su boobaa la la ca war doo ko ca mën a def wala nangam xeet googu su ko defee nit ki day dem ba moom lam daan def muy lu baax sax mën na dem ba benn jamono boo xam ne su demetee ba bëgg caa jëm day melni ni xel mi day ñëw wala bok shaytan day ñëw ci xel mi wax ak mom wala am ño xamne ñu ngi ko wër mo xam xam yeen say dana doon sa njabot yeen say dana doon say soxna wala mu doon sa soxna ñu ñëw taxaw taxaway booba melni la nga bëgg def dañu bëgg dox sa digënté ak loolu ta yow la nga bëggoon def doon lu baax ndax suñ borom mo am lu mu teurele aduna ba nga xamne lépp lu mu santane dana am lu mu lo xamne ne dala koy natto ngir xool ndax yow dangay jéggi nattu booba wuy ca lam la digal wala ndax dangay yem ca loola ndax àdduna yëpp noonu la dem nit ki domaine bu mu mën a doon soo ci tàbbee bëgg a dox ngir yàlla bëgg a jëf ngir yàlla dana am loo xam ne dana ñëw taxaw mel ni gàllankoor la ngir bëgg a dox sa digganteeg loola. su boobaa nag lay tax nga mën a jéggi loola mooy sa ngëm sa diggante ak sa borom nga xam ne lépp loo xam ne day mel ni gàllankoor bu taxaw. gëm gi ngay gëm sa borom ak bàyyee gi ngay bàyyee sa borom sa bopp mooy tax nga mën a jéggi loola waaye loolu nag su nekkul ci yow dëgg-dëgg su boobaa loolu day mujj nekk gàllankoor sa diggante ak sa borom te su ëllëgee réccu képp la lay jëmale nga xam ne soo xoolee comme soo demee ci alquran li yàlla di wax ne zuyina linnaasi hubbu shahawaati min annisaai wal banin wal xanaatiiri almuxantarati min aldahabi wal fidda wal xaylil musawwamati wal an'aami wal xars mu teg ci ne zalika mataaxul xayaati dunya wallahu hindahu nag xis wallahu hindahu husnul maab nga xam ne dafa am yoo xam ne dañu ko taaral ci nit ñi lu mel ni bëgg bànneex ci jigéen ñi ak ci doom ak lu mel ni di jël ay mbir di ko denc moo xam ci alal la moo xam ci wurus la comme li ñuy wax or moo xam ci jur la moo xam ci wàllu ay lu mel ni ay fas la moo xam ci lu mel ni ci wàllu mbay la wala ci lu mu mën a doon rek loolu dañ koy taaral ci ñun nga xam ne dañ koy bëgg dañ koy jël aj ko ci suñuy xol ba nga xam ne sax day dox diggante ak suñu borom li mu bëgg ci ñoom ba nga xam ne sax day dem ba dox su diggante suñu borom li mu bëgg ci ñun soo demee sax ci alquran di ngeen fekk suñ boroom di wax ne inna min azwajikum wa awlaadikum aduwwan lakum faahdaruhum suñ boroom di wax ne am na ci seeni soxna ak ci seeni doom ñoo xam ne noonu lañ ci yéen na ngeen leen mooy tëndiku te loolu li koy waral rek mooy dañuy dem ba day wuut a ma dañuy wuut dox sa digganteeg li sa borom bëgg ci yow dañuy dox sa digganteeg jëm ci li nga xam ne sa borom la bëgg ci te ki gëm dafa am loo xam ne suñu borom da ko tudd nga xam ne loolu mooy ay melokaanam te bokk ne ci melokaan yi joxe ci li nga xam ne suñu borom dala ko koo wërsëgal soo leen demee ci sootu Baqara ci njëlbeen gi suñ borom dafa wax ne alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin wax na alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna salaata mu teg ci wa mimma razaqnaahum yunfiquun nga xam ne taxawal julli ak joxe azaka dafa nekk loo xam ne lu ñëw la ay yoon yu baree baree bari ci alxuraan suñ borom nag fii nii la ko waxee rek تنجل بين بخرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون من أولاك على هدى من ربهم وأولاك هم المفلحون nga xamne ñi nga xamne dañuy bayyi xel yalla suñ borom bimu leen ni mooy ñi nga xam ne gëm nañ ci kumpa tey taxawal jokk gi tey joxe ci lu ñu leen wërsëgal ba tey it mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne gëm nañ li ñu wàccee mu jëm ci yow ak li ñu wàccee ci lu la jiitu te it ñu doon ñoo xam ne dañoo am kóolute ci bis pénc mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ko gu tukkee ci seen borom te mu ne ñooñu ñooy ñi texe ba tey tamit soo leen ba tey ci alxuraan suñ borom mu ngi melalaat ñi gëm دي واخني انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون متجن اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم mu ne dëgg-dëgg ñi nga xam ne daal ñooy ñi gëm ñi nga xam ne ñoom rekk ñooy ñi gëm mooy ñi nga xam ne suñuy fàttaliku yàlla seeni xol day nux nuxi te it suñuy tari ci ñoom ay aaya yàlla da leen di dolli ak ngëm te lii ba tey di delluwaat ci li ñuy wax ay yoon yàlla waxul ne te suñuy tari ci ñoom ay aayaam mi ay aaya yàlla ak leneen wax wa iza tuliyat alayhimu ayatuhu zaadatuhumu imaanan te suñuy tari ci ñoom ay ayam da dolli ak ngëm kon nit ki su fekkee dafa wax ne gëm na yàlla ndax même soo demee ci li ñu wax sànq lan la wax walladina yuminuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min xablika te li mu wàcce woon ci yonent bi lan la doonoon lu ab téeréem li mu ko wax ne ko zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin li mu wàcce woon ci yonentu mooy ab téeréem téere boobu nag ay aaya ñoo ko composé suñ borom mu ne nag te suñuy tari ci ñi nga xam ne dañoo gëm suñuy tari ci ñoom aaya yàlla yi loolu da leen di dolli ak ngëm mu wuuteeg lool kon ñi nga xam ne dañuy wax ne gëm nañ yàlla te sooy tudd ay aaya yàlla képp dañuy bëgg nga ciy dolli leneen ndax ay aaya yàlla doyu leen ndax téere bi yàlla moo leen doyut te kem yàlla la mu waxoon yonent bi fee ne ko awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhimu in fi dhalika la rahmatan wa dhikra li xawmin yuminun ndax da leen a doyut wàccee gi ñu wàccee ci yow téere bi ñu di leen ko taril ndax da leen a doyut wàccee gi ñu wàcce ci yow téere bi ñu dinañ ko tari ñi nga xam ne dañoo gëm nag ñoom suñuy tari ci ñoom ay da leen di dolli ak ngëm te ñoom kat ñu wakkiilu ci yàlla seen borom lañ dañuy doon ñoo xam ne dañuy wakkiilu ci yàlla seen borom mu ne ñooñu nag ñoom it dañuy taxawal jokku gi dañuy taxawal julli tey joxe ci li ñu leen wërsëgal suñ borom mu ne ñooñu ñooy ñi gëm dëgg ñooñu ñooy ñi gëm dëgg kon ki nga xam ne kon dafa gëm loolu ñuy wax joxe ci liñ la wërsëgal ñu di ko tuddee azaka nga dem fenn fekk ñu koy tuddee sarax ci biir alxuraan loolu noonu nga xam ne lu ñu war a joxe la nga xam ne àq la goo xam ne ñi ñu xañ ak ñi nga xam ne ay laajkat lañu maanaam àq la gu ñu am ci suñu alal ñi gëm yàlla ñoom lu mën a xew loolu dañ koy def léegi nag loolu nit ñi dañuy ñëw di wax ni comme ni ñu ko daan jàngalee ci njàngalem ahlu sunna wal jamaa na loolu ñuy wax azaka nekkul lu ñu faram-fàcce ci biir alxuraan nga xam ne waxuñu ci misaal lan la ñuy joxe xam ne utal nañ ko ñoom too na léegi nit ki azaka soo amee xaalis bu mat li ñuy wax nisaab nisaab soo demee ci téere yi di ngeen ko fekk lu muy nekk mooy dafa am benn lim bi ñuy wax misxaal nga xam ne unité de mesure la misxaal boobu mu ngi tolloo 4 virgule 89 grammes misxaal boobu nag nga am ñaar fukk maa nga am ci ñaar fukk ñaar fukk misxaal nga xam ne léegi comme par exemple su dee ci or la maanaam 4 lu mel ni ñaar fukki misxaal ngay am mu mën a ne loolu mooy mat nisaab am na léegi su fekkee ne ci or la daanaka loolu day tolloo quatre-vingt-dix-sept virgule huit gramme d'or quatre-vingt-dix-sept virgule huit gramme d'or daanaka da loolu soo xoolee daanaka quatre-vingt-dix-huit daanaka soo xoolee daanaka quatre-vingt-dix-huit gramme d'or waaye daal quatre-vingt-dix-sept virgule huit ndax quatre virgule quatre-vingt-neuf gramme la léegi soo ko multiplier par vingt muy vingt yooyu da lay jox léegi 97 virgule 8 gramme d'or 97 virgule 8 gramme d'or soo ko xoolee comme ci kuuru or bi nii lu mel ni tey jii nekk le 7 ci weeru août daanaka léegi day tolloog 3 millions 400 yu teg ñu ne léegi loolu da nga koy am téye ko ba mu mat at nga doog caa génnee nag yow sa alaka léegi lii kenn ku ci ne na dem xalaatal ko boppam calculer ko boppam xool ñaata la ak kan ak kan ko mën kan kan moo ko mën ci suñu réew yi yor lu toll noonu denc ko ba mu mat at nga doog caa génnee li ñuy wax deux virgule cinq pour cent kan ñoo mën loola. nga xam ne loolu yàlla defalu ko ñëpp nga xam ne même ñun ñii bi ñuy doon ndaw bi ñu jàngee loolu lañ daan wax ne ñu naan leen ñun de lu ñu jàngal ci azaka loolu moom li leer te wóor mooy ñu ko mën bariwut rawatina ñun ci suñ dëkk yi léegi nag loolu nag nga xam ne moom lañuy jàngale mii nisaab booba ak taux bañ cay wax loolu lañuy wax ne ñëwul ci alxuraan suñ ko waxee ñu leen waaw loolu mënta ñëw ci alxuraan ndax yàlla da koo jàngale ndax yéen xalaat ngeen ne suñ borom mu fi indi nit ñi jox ñii lu bari jox ñii lu diggu doomu jox ñii lu néew xañ ñii dana wax ñu gëm ñi ne leen kat nangeen joxe ci liñ leen wërsëgal at ba at sooyeen amee lu toll nii kon ñi nga xam ne dañ leen xañ ñoom naka lañuy ñuy dunde yàlla dafa organiser àdduna noo xam ne kenn niñ ko waxee sànq lim ñu sant ba tax mu indi ñu fii muy liggéeyal ko ci kaw suuf li nga xam ne moom lañ soxla ngir dund ba lim bëgg ci ñun ci mission bi mu ñu indee fii ñu mën koo def loolu jox nañu kenn ku ci ne nag li la doy yow yàlla xam na ko su la joxee lu ëpp rek dalay séddale ci domaine bu mu mën a doon kenn ku ci ne li la doy yàlla xam na ko yàlla ku mu jox lu ëpp rek dalay séddale te loolu nag ci domaine bu mu mën a doon nag ci mën doon yàlla ku mu jox lu ëpp rek dalay séddale loo waaye nit ñi seytaane da leen di xiirtal ci di leen ragal loo ñàkk ci di leen xiirtal ci ñoom duñu xalaat kenn ku dut seen bopp ñoom te niñ koy waxee li yàlla wax na wa ma arsalna min xablika min rasulin wala nabiyin illa ida tamanne alxa shaytaan fi umniyatihi fa yansaxu llahu maa yulxi shaytaan summa yuxkimu llahu ayatihi wallahu alimun xakim li nga xam ne moom la yàlla wax ne musul yebal ci man ci lu jiitu yonent bi benn ndaw waxuma la ku ñu solo lu dul na bi mu ñëwee wax li muy wax ba noppi seytaane dugal na ci mbiram seytaane lam ciy dugal nag ci ay nit la koy jaarale nit ñooñu ñëw wax loola mooma la koy yonent bi nit ñi jël ko nag saxal ko di ko dund dem ba jàpp na loolu mooy diine te fekk na loolu dara boolewu ko ak li yàlla jàngaleel bopp ndax soo demee ci alxuraan loolu nga xam ne dañ koo war a joxe yàlla da cey wax lu leer ndax dañu ñëw wax ko yoonent bi yàlla bi mu waxee ne alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun waxa fee ne ñi deug deug mooy alladina ida zukira allahu wajilat xuluubuhum wa ida tuliyat alayhimu ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun alladina yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun ulaika humul muminuuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim dama fee ci bi muy leeral ñi nga xam ne ñoom ñooy almuxbitiin yi mu ne alladina ida zukira allahu wajilat xuluubuhum waa wassaabirina ala ma asaabahum wal muqimi salaat wa mimma razaqnahum yunfiquun nit ñi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko yasalunaka maza yunfiquun dañoo ñëw yonent bi di ko laaj lan la ñuy joxe dañuy joxe ci lu ñu leen wërsëgal nit ñi ñëw ci yonent bi di ko laaj ana lan la suñ borom wax yonent bi ne ko yasalunaka maza yunfiquuna ne suñ borom wax ko ni ko waxal ne xul ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم dañoo ñëw ci yonent bi di ko laaj lan la ñuy joxe yàlla wax yonent bi ne ko ñu ngi lay laaj lan la ñuy joxe yàlla na ko waxal ne li ngeen di joxe ci lu baax waaye li ngeen di joxe yàlla wax ne maa li ngeen di joxe ci lu baax nee na loolu kat kon ngir waajur yi la ak jegeñaale yi ak jirim yi ak miskin yi ak doxandéem yi suñ borom mu teg ci ne te lu ngeen def ci yiw li ngeen def ci lu baax na ngeen xam ne yàlla moom xam na ko ñu demaat ba ci kanam ñëwaat laaj ko ne ko wa yasalunaka maza yunfiqun boobu moo ngi nekk ci biir aaya bale yasalunaka an alxamri wal maysir xul fihima ismun kabirun wa manafihu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafihima ci lay wax boobu ci lay doog a ñëw wa yasalunaka maada yunfixuuna ñëw nañ na koy ñëw na fee yasalunaka maada yunfixuuna mu ne xul ma anfaqtum min xayrin fa lil waalidayni wal aqrabin wal yataama wal masaakin wabni sabil ñu ñëwaat na ko léegi wa yasalunaka maada yunfixuuna ñu ñëwaat di ko laajaat ana lan la ñuy joxe suñ borom na ko ñu ngi dee laaj lan la ñuy joxe mu ne ko waxal xul al afwa suñ borom na ko li ñuy joxe mooy li mën a ñàkk li mën a ñàkk mooy li ñu wax al am na ñu koy firee ndes waaye du ndes nag ndes mooy jëfandikoo naa li ma war a jëfandikoo ba pare léegi naa génnee lii sama ndes la déedéet mooy li mën a ñàkk li mën a ñàkk ci yow te du la lor loolu mooy al afwa loolu la yàlla wax ne nañu ko joxe nga xam ne yow suñ borom li mu wax wa mimma razaqnaahum yunfiquun ñi nga xam ne ci li ñu leen jox maanaam dañuy nga xam ne maanaam ci lu ñu leen wërsëgal dañ ciy joxe te am na ci ñoo xam ne suñu borom bis bu set dalee ne wërsëgal kon bis bu set am na loo xam ne war nañ koo mën a joxe am na ñoo xam ne dañuy liggéey par weer weer ba weer lañ leen di fay am na ci ñoo xam ne ñoom ay baykat lañ weer wu ne maa at mu ne ñetti weer la ñuy liggéey nga xam ne ci lañuy ñuy bay ñooñu suñ borom dalee leen wax ne maanaam bis bi ñu góobee rek ñoom nañu joxe seen àq li ko waxee wa aatu xaqahu yowma xisaadihi wax lu mu ko waxee wa huwa alladi anshaa jannatin maarushatin wa gayra maarushatin wa naxla wa zarca muxtalifan ukluhu wa zaytuuna wa rummaana mutashaabihan wa gayra mutashabihin kulu min samarihi ida ahmara وآتوا حقه يوم حسابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نيغا خامنا نيوم داني باي يالا نالين نيوم بيس بنيو غوبي رك ناني جوخي سين اخ ليغي لان لاني جوخي لا جون نين كفاي ويسالونك ماذا ينفقون سن بروم نا خول العفو يالا باتاي واخنا تي لانك لان تي لاني ورا جوخي كوم لولو ني واخ ازاكا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 joxe leen ci yu teey yi nga xam ne moom ngeen fàggu ak li nga xam ne dañu leen koy génneel ci suuf nga xam ne nit ki lu teey yi nga xam ne dangeen koo fàggu ak li nga xam ne dañu koy génnee ci suuf mooy ci xeetu mbay ak ya ca topp suñ borom mu wax ne ci loolu lañuy joxe waaye mu tëccee nag wala muul xabiisa minhu tunfixuun xam nga baatu tiim dinañ koy wax yenn saa yi dañuy wax na olof firiwul baat bi waaye tiim du nekk loo xam ne tur la ndax baat bi moo ñëwaat ñëwaatee wala tayammamul tayammamu comme li ñuy wax luñu baat boobu ñuy firi tiim mooy maanaam bu leen dàq alxabiisa minhu la ngeen di joxe mooy la nga xam ne lu teye la ngeen fàggu ak lañ leen génneel ci suuf bu leen ca dàq la bon di ko joxe loo xam ne yéen suñ ngeen ko doon jox du ngeen ko jël lu duna da ngeen a gëmm loolu suñ borom di jàngale kon nit ki lan la war a joxe li ñuy wax azaka ci li nga xam ne lu teey li nga xam ne da koo fàggu ak ci li nga xam ne dañ koy génnee ci suuf nga xam ne lu aju ci wàllu mbay yooyu yëpp suñ borom jàngaleel na ko bopp yii nag mooy li nga xam ne moom la yàlla jàngale te fee it wax na lu gën a yaatu li mu wax ne wa mimma razaqnahum yunfiquun am na te nga xam ne dañuy joxe ci lu ñu leen wërsëgal nga xam ne yii yëpp suñu borom moo ko jàngaleel boppam ci alxuraan bu njëkk ma nag daan ngeen gis ñu ñuy jàngal di wax ci wàllu azaka di wax ne di indi aaya bële ñuy wax xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhimu inna salawatika sakanun lahum wallahu samiun alim waaye loolu liñ ciy wax lu leer la loo xam ne lu ku ne mën a dem vérifier ko boppam xam nga alxuraan li ñu daan jàngal bu njëkk ba ci njàngaleem ahlu sunna wal jamaa comme fii nag laay wax nga xam ne ci réew yi loolu la ñu daan jàngal fii ci réew mi nga xam ne daanaka lu ci bari suñuy wax ci alxuraan dañuy dem rek cuqati benn aaya ca fam bokk génnee ko wax ci wala ñëw def ko ab lay ci benn mbir ne yàlla fii la yàlla jàngale nàngam te fekk na aaya boobu di xuz min amwalihim صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ngir nit ki mën a xam aaya boobu ci lan lay wax kenn ku ci ne mën na dem vérifier ko na kenn ku ci ne dem ci suuratu tawba xool lu commencé ci aaya 75 ba aaya 66 lu commencé aaya 75 ba aaya 106 na kenn ku ci ne dem xool suuratu tawba muy suurat 9 lu commencé aaya 75 ba aaya 106 nga xam ne wax ji mu ngi tàmbalee ci wa minhum man haahada allah la in min fadlihi la nasaddaxanna wa nakunanna min alsaalihin fa lamma aateyhum min fadlihi baxilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun suñ borom di wax ne am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo dëxalaante ak yàlla ne suñu joxee ci ngëneelam danañu saraxa bu wér te danañu bokk ci ñi nga xam ne ñu baax ñi lañ nga xam ne dañoo waxoon ne dañoo jëloon engagement seen diggante ak seen borom na suñ borom su joxee ci ngëneelam danañu saraxe te su boobaa danañ bokk ci ñi nga xam ne ñu baax lañ ba yàlla joxee ci ngëneelam ñu nay maam ñu nay ca loola wan ginnaaw ba noppi du mooyu suñ borom nag mujjeel ci seen xol li ñu wax ak nifaaq mooy ak naafeq ba ba keroog bis ba nga xam ne ca la ñuy dajeeg moom ci li nga xam ne moom lañu ñu wuuteeg la woon ak moom ak lañ ñoon ma ak li nga xam ne dañ cee kàccoon aaya yooyu nag lu commencé foofu ci aaya 75 bi ci sóotu tawba soo leen ci tàmbalee di wàcc di ngeen dem ba yegg ci fiñ borom fi muy waxee ne al aarabu ashaddu kufran wa nifaaqan وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله te aaya boobu sax wax jooju doon lu am solo loo xam ne lu lu mat a bàyyi xel la yàlla day wax ne arab yi ñoo gën a tar ak kéefër akuk naafiq te mu ne ñoo gën a yey ci ñàkk xam dayoob li yàlla wàccee ci ndawam li ñoo gën a yey ci ñàkk xam dayoob li yàlla wàccee ci ndawam li te loolu soo xoolee daanaka bu njëkk ba comme liñ xamoon daanaka nga xam ne comme li ñuy wax arab yi nit ñi fonkoon nañ leen fonkoon nañ leen fonk gu toll nii daanaka jàpp nañu lu ci bari lu ñu wax rek dëgg la te bari na loo xam ne gëm nañ ko ci diine nga xam ne jàngaloon nañ ñu ko ci diine nit ñaa ngi ko gëm lu baree bari ba léegi ci njàngal ahlu sunna wal jamaa ci ñoom ñooñu la bàyyi ko lu baree baree bari bari ñu koy sos di ko jëmale ci yenant bi ngir bëgg a dugal loolu ci diine loolu dem bañ dugal ko ci ba mu dem ba mel ni ca la bokk te yàlla dane ñoom ñoo gën a yey ci ñàkk xam dayoob li yàlla wàccee ci ndaw nga xam ne li yàlla wàccee ci ndaw li nga xam ne moom la yàlla wàccee ci ndawam dayoo ba ñoom ñoo ko gën a mën a ñàkk xam moo tax sax ñuy dem di dugal ay mbir di wut a saxal ay mbir nit ñi dem ba gëm ko jàppee loolu diine àttan cee werante àttan cee def lu ne aaya bu soo leen demee ci digënté bobu la nek yàlla wax ne al a'rab ashaddu kufran wa nifaqan ginnagu mu ñëw ni wa min al a'rab may li wax ne wax ne wa min al a'rab may yattakhidhu ma yunfiqu ma'raman ñëwaat ci benen aaya waxane wa min al a'rab may yuminu billahi wal yawmil akhir ne amna ci ñoom xam day ñëw di wax al a'rab ashaddu kufran wa nifaqan ñëw nak di indi ay xaat ci seen biir amna ci ño xamne ni lañu mel amna ci ño xamne ni lañu mel ñëwaat ci ginnaaw gi ne yonent bi wa min man xawlakum min al aarabi munafiqun wa min ahli lmadinati maradu ala nnifaaqi la taalamuhum nahnu naalamuhum sa nuadibuhum marratayni summa yuradduuna ila adabin azim di wax yonent bi ci ñi nga xam ne dañ koo wër ci arab yi am na ci ñoo xam ne ay naafeq lañ ak ci ñi nga xam ne waa madina lañ suñ borom di ko xamal na ko yow ñooñu xamoo leen waaye ñun xam nañu leen ñooñu nag ci seen biir suñ borom dafa wax ne am na ci ñenn ñoo xam ne nag ñoom xam nañ seen bàkkaar wa axaruuna axtarafu bi zunubihim xalatu amalan salihan wa axara sayian asa allahu an yatuba alayhimu inna allaha gafuru rahim ñi nga xam ne ñoom xam nañ seen bàkkaar ñooñu la yàlla wax yonent bi ne ko xuus min amwalihim ñooñu la yàlla wax yonent bi ne ko jëlal ci seen alal sarax boo xam ne da leen di sellal ma nga xam sarax boo xam ne da leen di laabal te di leen sellal dilal ci seen alal sarax boo xam ne da leen di laabal te di leen sellal nga xam ne kon xuus min amwaalihim nekkul loo xam ne dafa jëm ci ñëpp dafa jëm ci ñenn nit ñoo xam ne suñ borom da leen a tudd moom ba pare ndax ni mu waxee wa aaxaruuna ixtarafu bi zunubihim ginnaaw gi noonu la waxee wa aaxaruuna murjawna li amrillah te loolu kenn ku ci ne soo demee commencé lu mel ni ci ay 75 ba aaya 106 yaa koy gisal sa bopp ndax ñoom dañoo waxoon ne suñ borom su leen joxee ci ngëneelam danañu saraxe te ñu bokk ci ñi nga xam ne ñu baax ñi lañ bi leen yàlla joxee nag ñu wal loolu ginnaaw léegi nag ñooñu nag la yàlla wax ñenn ñi nga xam ne ñoom nangu nañ seen bàkkaar wala ràññee nañ seen bàkkaar nga xam ne nangu nañ ne ñoom jëf nañ bàkkaar ci ñooñu la yàlla wax yonent bi ne ko ñooñu jëlal ci seen alal waaye li nga xam ne moom la ñuy jël ci ñoom it ba tey soo leen demee ci suuratu laxraaf ca mujj ga di ngeen fekk comme yàlla waxee xuz min amwalihim noonu ngeen fee fekkee suñ borom di wax ne xuzil afwa wa amur bil urfi wa aarid anil jahilin jëlal li mën a ñàkk te nga digle ak njëkk te nga wan ginnaaw ñi nga xam ne dañoo umpale nga xam ne alxuraan leen lu ci ne suñ borom lam ca war a wax moom wax na ko maa kiy joxe it na mu war a joxe nga xam ne nga xam ne maanaam joxe ga muy joxe waru cee booleeg lu mel ni ak ñaxtu wala di lor ndax suñ borom wax na ne xawlu maarufun wa maxfiratun xayru min sadaqatin yatbauha adan mu wax joo xam waxu njëkk la ak njéggal moo gën sarax boo xam dañ cay toftal lor kon lu ci mën doon rek suñ borom sujet bi lépp lu ci aju ci détails yi nga xam ne suñ borom da ko cee wax ku dem ci alxuraan yaa ko fay fekkal sa bopp kon yàlla wax na maanaam la ñuy joxe wax na ci li nga xam ne ci lañu war a joxe ba tey jàngale na ñan la ñuy jox batay soyen deme ci batay tey sootu tawba gën nako koo yaatal innama sadaqatu lil fuqaraa ba fa aya boba yem lépp insha allah référence dina ñëw kenn ku ci ne su boba yow yaay mëna dem xolal sa bop buntu boobu la ca aju insha allah dina leen duggal référence yépp nga xamne ku melni so deme ci sootu bakhara di tambalé ci aya 262 ba aya 274 soñ fa deme it suñ borom inna fa lu yaatu lo xamne kenn ku ci ne mëna ko xamal bopam kon azaka lu yomb la nit ki suñ borom li nga xam ne maanaam li nga xam ne suñ borom dala ko wërsëgal ci li ngay fàggu maanaam li nga fàggu ak li nga xam ne dañ koy génnee ci suuf ci loolu ngay joxe azaka te sooy joxee it bul joxe lu bon joxe lu baax ndax yàlla wax na fee ne lan tanaalul birra xatta tunfixu mimma tuhibbun du ngeen am ak mbaax mukk lu dul ne da ngeen a joxe ca la ngeen gën a bëgg kon su nekkee ne nit ki da ngay dem bay joxe it la ngay joxe na doon lu baax te la ngay joxe it bu mu ànd ak ñaxtu bu mu ànd ak lor ndax la ngay joxe joxe woo ko ngir ki ngay jox waaye da nga koy jox ngir jëmmi yàlla mi la wërsëgal jox la ngir am loo xam ne nam na nga jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom seen bopp amuñu nga xam ne su boobaa rek tegtale wut ne ah waaw léegi ndax kon su boobaa du ma mën a épargner dara wala du ma nangam wala du ma nangam déedéet. yow li meuna ñak ci yow xam nga ne li kat meuna ñak ñàkk ci mënta duma lor yàlla waxul na la li nga yor nepp joxe ko ginaaw bi nga defee li nga soxla ba noppi dedet ndax yàlla wax na ne wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika mu tëj ne nag wala tabsutha kullal basti fa taqhuda maluman mahsura yàlla wax na ne bul jël sa loxo gëx ko ci sa dox waye nak bul talal sa loxo yépp bul tàllal sa loxo yépp nga xam ne kon bul ñàkk joxe waaye bul joxe li nga am yépp kon suñ borom ci li mu lay wërsëgal su fekkee ne bis bu set am na lu mu lay wërsëgal gis nga koo xam ne kat ku ko yittewoo la ku ñàkk la dee ko jàppale ci loola su fekkee ne yàlla dafa dogal weer ba weer ci nga li ngay am ci nga koy am saa yoo amee xoolal koo tane nga dimbalee su fekkee ne semaine ba semaine la wala moo xam fréquence bu mën a doon loolu nit ki su lii su ko leeree dina xam ne kon moom noonu la war a doxale te loolu la ñu suñu borom sant waaye nekkul at ba at loolu kenn du ko génnee ci alxuraan taux boobu ñuy wax alxuraan amul taux boo xam ne nit da koo war a joxe rawatina loolu ñuy jàngale ci nisa ba deux virgule cinq pour cent yañ cay wax ak yooyu du alxuraan alxuraan lenn moo fa am ab pourcentage lo xamne ne daanaka soo demee ci alquran mu ngi jëm ci li nga xamne dañ koy jëlé ci xare so demé ci alquran li yàlla wax ne wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusahu wa lirrasuli wa lidil xurbe ba fa aya bobu yem lool mu ngi nekk ci sourate lanfal yakana aya 41 kenn ku ci ne su boba tamit yoy dem xolal ko sa bop nga xamne ne un cinquième moo fa nekk te loolu nekkul lu ñuy wax azaka waye loolu mu ngi jëm ci li nga xamne dañ ko daan jëlé ñom ci xare te loolu incha allah sa aaya boobu danañ ci ñëw na am na beneen aaya bu mu lëkkaloon boo xam ne yenn gars yi am na lu ñuy cuqati ci aaya ba di ko faral di layee ben aaya bu nek fële ci suratul hashr ma afa allah ala rasulih min al khuray moy wax bobu ñi faral di wax na ma atakum ar rasul fa khudhu wa ma nahaykum anu fantahu nga xamna ne bobu day wax ci lo xamne ci butin la jëm gaay jël ko ne yeenent bi lum leen jox na ngeen jël lum leen tere na ngeen ko bàyyi ta fek ne lum leen jox ci butin bi la yàlla di jàngale na ngeen ko jël lum leen ci tere na ngeen ko tere wu ñom ñu jël ko nak jëmele ko fenen mu melni manam al qur'an mom li yàlla di jàngale bopum dafa leer wu kon daal dëgg-dëgg lii buntu la boo xam ne aay yi nga xam ne ñoom ñoo ci jëm yëpp aay yu baree baree bari la aaya nag yoo xam ne maanaam ngir ñu mën ko indi ci biir ci biir benn vidéo day doon su boobaa lu yaatu lool waaye nag dinañ indi li nga xam ne mënu cee ñàkk nit ki mën koo xamal boppam incha allah ci commentaire yi dinañ ngeen indil verset yi nga xam ne ñoo ci jëm ci diggante yépp su ko defee kenn ku ci ne di nga mën a dem xooli ko boppam. légi nak nit ki nak su fi nekké nak di bàyyi xel di wut jël di denc ka dajale ka def yoy comme niñ koy défé fi ci réew mi nga xamné manam so démé ci alquran yàlla mu ngi wax ne ya ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbaari wa ruhbaan la an amwaal bil batil wa yasudduna an sabilillahi والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم muy wax ne yawma yuhma alayha fi neeri jahannama fa tukkuwee biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fa su fa zuuxu takk kuntum taknizun nga xam ne suñ borom mu ngi jàngale loolu di wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm lu bari ci fóore yi ak làbbe yi nga xam ne maanaam lu bari ci fóore yi ak làbbe yi dañuy lekk alalu nit ñi ci neen ba noppi di dox seen digganteeg yoonu yàlla nga xam ne soo xoolee fii ci réew mi daanaka xeet googu moo fi ne la ñu jiitu ña daan def moom ngeen di fekkaat fii ay nit ñu ñuy tuddee ay boromi xam-xam wala ay nit ñu ñuy tuddee làbbe ñu ñuy tuddee comme nitu diine daanaka dañuy ñëw di lekk alalu nit ñi ci neen di créer ay mbir yu kenn xamul nit ñi di ci jël seen alal di ko ci def di wut a dox seen digganteeg yoonu yàlla ndax yoonu yàlla loolu amu ci yàlla moom diineem lu jàppandi la kenn ku ci ne ki nga war a dimbali maa la ngay jël di ko def ci yenn ci yenn mbir yi am na ñu la dajeel ñoo xam ne kat am na ñu la jege ñoo xam ne kat ñoom ay nit ñu ñàkk lañ te su fekkoon ne yenn yi ngay jël di ko dugal ci yoo xam ne amalu la njëriñ tey it du la amal njëriñ sa diggante ak sa borom nga koy dimbalee ñi nga xam ne ñoom ñoo ko aajowoo su boobaa loolu dana la amal njëriñ sa diggante ak sa borom. ndax yàlla wax alladina yunfiquna amwalahum billayli wannahaari sirran wa alaniya fa lahumu ajruhum hinda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun nga xam ne comme soo xoolee suñ dëkk yi soo yun fi ñëwee ni nga xam ne noonu la nit ñi di tabaxee ay xeetu jàkkaak lañ cay def ci alalak ay nga xam ne daanaka barab boo dem fekk fa lu bari loola loolu li ci ëppoon solo mooy fexe ba nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk maanaam ñu di leen dimbale leneen lu mu mën a doon lu ne nag suñuy tabax jàkk ñu tabax ko suñ ko tabaxee ña ca war a julli mën caa julli te aajawul yenn taaral yu rëy yooyu ñu koy def aajawut loola nit ñi ñoo gën a soxla loolu tabax yooya te lii suñ ko xamoon mu amal leen njëriñ wala comme par exemple soo ñëwee fii am na ci soo demee sa rawatine soo demee suñ mbokku jigéen ñi noonu ñuy bëggee di dajale ay or ak di wax naan sama or yi ma am ak sama nàng mi ama di di jël di denc te duñ def ci yoonu yàlla yit suñ borom wax na ci loolu lim mooy lim teg ci aaya ba wala nga xam ne li mu wax ne yàlla li mu wax ne yaa ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbaari wa ruhban la yaakuluna amwaala annaasi bil batil wa yasudduuna an sabilillah nga xam ne dañuy lekk nga xam ne lu ñuy wax fóore yi mooy ñu ñuy tuddee borom xam-xam yi ak ñu ñuy tuddee làbba yi dañuy lekk alalu nit ñi ci neen ba noppi di dox seen digganteeg yoonu yàlla xam dem nañ ba yegg foofu aaya bi ñu doon wax sànq ci ginnaaw wa ida tuliyat alayhimu ayatuhu zaadatuhumu imanan sooy tari ci ñoom ay aayay yàlla da leen di dolli ak ngëm ñooñu dañuy dem ba sax dañ leen di ragalloo kii wax aayay yàlla ndax li yàlla jàngale leer na leen ne bis bu ci nit ñi yeewoo dootuñ am kenn ku ñuy nax dootuñ am kenn ku ñuy jëriñu dootuñ am kenn ku ñuy nax dootuñ am kenn ku ñuy jëriñu moo dañuy fexe ba dox seen digganteeg njàngaleem yàlla ndax ci noonu lañuy mën a doxee seen digganteeg yoonu yàlla yàlla teg ci ne nag ñi nga xam ne nag dañuy ndàmbal alal ak wurus te diñ ko def ci yoonu yàlla suñu borom mu ne bégalal ñooñu maanaam ci mbugal mu tar ndax suñuy wax yoonu yàlla yoonu yàlla mooy dey nekk mu day fekk mu doon lu yàlla jàngale loo xam ne dafa dëppoog li yàlla waxal boppam waaye naan la kaay def ci yoonu yàlla te lañ lay wax nekkul lu yàlla tëralal boppam nekkul lu yàlla digle nekkul lu leen yàlla jëmloo loolu moom ku la wax na yoon yàlla it dalay nax suñ borom mu ne ñooñu nga xam ne nag dañuy jël di wut a denc ay alal ak wurus te duñ ko def ci yoonu yàlla mu ne suñ borom mu ne ñu bégal leen ci mbugal bu métti mooy li ñuy wax li ñuy wax maanaam duma yu métti. bis booba nag mii bis penc suñ borom mu ne loolu dañ koy ruyal di ko sotti ci ñoom noonu la ko jàngalee yawma yuhma alayha fii neeri jahannama fa tukkuwee biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum mu ne haza kanastum li anfusikum nga xam ne denc gi ngeen koy denc seen bopp ngeen koy dencal ngir ëllëg ñu mën koo ruyal sotti leen ko loolu la yàlla jàngale kon nag li am solo mooy kenn ku ci ni xamal li la fi indi yow xamal na yàlla da la fi indi mission su la yàlla joxee lu la ëpp te laa waxul na nag nga fàtte sa bopp waaye nag koo mën a dimbale na nga ko dimbale te yàlla tax te ndimbal li bu ko def ngir ngistal bu ko def ngir dara ba tey loolu jàngay ba tey loolu yàlla jàngay na ko ñi nga xam ne dañuy ñi nga xam ne dañuy joxe ci ngistal lu yooyu yëpp aaya yooyu yëpp incha allah yëpp dana kenn ku ci ne dana ko gisal boppam nga xam ne bunt bi yàlla amul lenn lum ci bàyyi ki fi nekk nag ah naan di wax na ah man damay bàyyi ba ci kanam waaye damay nàngam yàlla li wax يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون et yéen ñi nga xam ne maanaam da ngeen a gëm yàlla maanaam bu leen seeni alal waxuma la ak seeni doom di leen fàtteloo wala boog di leen fonkadiloo wala di leen doyadiloo fàttaliku yàlla wala di dox seen digganteeg fàttaliku yàlla mune ku def loola kat mune ñooñu ñooy ñi yàqule suñ borom tek ci na wa anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dicrillah wa man yaf'al dalika fa ulaika humul khasirun suñ borom nak mu wax ne wa anfiqu mimma razaqnakum min xabli an yati ahadukum almawt mu joxe len ci liñu len wërsëgal comme ni waxee ne maam ak ñi nga xam ne dañuy joxe ci lu ñu leen wërsëgal mu ne léegi yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm seeni alal ak seeni doom bu ñu leen doye dilloo wala bu ñu dox seen digganteeg fàttaliku yàlla mu ne ku def loola kat mu ne ñooñu ñooy ñi yàqule mu ne joxe leen ci liñ leen wërsëgal lu jiitu dee di dikkal kenn ci yéen su boobaa miy wax lan muy wax na fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin kharibin fa asaddaqa wa akum min salihin su boba koku day wax nan ah yow suñ borom soo ma yéexee ba apu bu jege rek su boba kat dana saraxé te dana bok ci ñi nga xamné ñu bax lañ suñ borom tek ci né walan yu allahu nafsan ida jaa ajaluha mune mom kat du yexé ben bakkan su àppam joté kon li am solo ci kenn ku ci ne ci ñun mooy mu xam ne suñ borom lim lay jox dafa bëgg dalaa digal nga di ci joxe soo ko deful it lu mën a xew su fekkee da ngay dajale wala lu mu mën a doon lam la ca war a wax wax na la ko su fekkee da nga koy joxe di ci boole ak ñaxtu wala di ci boole ak lor lam ca war a wax wax na ko soo koy joxe ci ngissal lam ca war a wax wax na ko te la nga war a joxe it wax na ko lu mën a ñàkk la wax kon loolu loo xam ne mën na dënc yow te du la lor te loolu jàpp naa ne ku mu mën a doon ku ne mën na ko nga xam ne jarul nit ki di yéem dara jarul nit ki di xeeb dara kenn ku ci ne lu mu am li nga xam ne kenn ku ci ne li mu am rek ba di ko xeeb am na ci koo xam ne loolu lay ngéejoo kenn ku ci ne looy xeeb a joxe am na ki ngéejoo loola ndax yàlla moo bind te yemalewul kon dëgg-dëgg macha allah mbir yi lii rek la woon waxtaan wi lii rek moo ko waraloon ndax buntu la boo xam ne nit ñi yàgg nañ di ci laaj def nañ ci ay audio ay yoon yoonu yoon waaye macha allah dañoo waxoon nañ ci def ab vidéo mu dool loo xam ne incha allah képp koo xam ne bëggati na xam lu aju ci lii yow yaay demal sa bopp ci alquran xoolal sa bopp référence yi nga xam ne joxe nañ ko yow yaay gisal sa bopp ci li yàlla jàngale ci li ñu war a joxe ak la ñuy joxe nam war a toll ak lenn la mu mën a doon nga xam ne al afwa kenn ku ci ne yow yaa xam li mën a ñàkk ci yow la mën a ñàkk ci yow moom ngay joxe loolu la la sa borom teg te loolu it nekkul at ba at su dee koo xam ne at ba at lay fayeeku su boobaa at ba at lay mën loola su dee koo xam ne day bay at ba at su boobaa moom saa yu góobee rek lay joxee loolu comme ni ko yàlla waxee wa aatu xaqahu yawma xisaadihi su dee nag nit koo xam ne bis bu set suñ borom dana ko wërsëgal su boobaa loolu jamono bu ne da koy war ndax li yàlla wax mooy wa mimma razaqnaahum yunfiquun nga xam ne dëgg-dëgg mbir moomu noonu rek la demee kenn ku ci ne aay yaa ko mën a gisal sa bopp yaa koy xoolal sa bopp su boobaa yaa xam sa borom lan la la wax ak lan la la waxul képp ku ñëw nag di la wax leneen lu waroog lii nga ne ko yow li may wax wan ma fan na ko suñu borom jàngale cib téeréem su la ko wanee nga xam ne loolu la su la ko warul nga xam ne du loolu te li leer te wóor la ñu daan jàngal mii lu mat nisaab toog ba mat at nga génnee taux deux virgule cinq pour cent loolu moom du alxuraan te kenn ku ne xam na du alxuraan te kenn ku ko mën a wane ci alxuraan amul kon dëgg-dëgg daal lii daal mooy li wér macha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum